auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyoo bu baax a baax a baax di nuyu mbokk sénégalais yi ñuy setaan képp ki nga xamante ni yaa ñu gis rek ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay di wax it jërëjëfe Serigne Touba jaraw la Ibrahima Fallam di jox euh, seen wàccuwaay kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa nuyoo di la jox sa wàccuwaay bu baax ak bépp sénégalais bu ñu setaan di nuyu télévision bi fi ñëw. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk ci di leen déglu rek ci seen ay laaj bépp question bi nga xamante ne laaj ngeen ñu ko rek daan ci jéem a tontu suñu kéemtalaay kattan incha allahu rabbi waaw jërëjëf Mamran ci question bi nga ma laaj muy question bi nga xamante ni c'est très important xamante ni euh, am na ñu bëri ñoo xamante ni soxal na leen wala amal na leen njariñ muy question bi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu faru rab ak jinne ak seytaane ngelawu seytaane ak nitu guddi ñu koy wax ñi ñuy tooñ loolu yëpp la ñu fas yéene tey toj waxtaan ceeg yéen bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla may ñu xam-xam am lum ñu ci dénk ni nga xamante ni mu jëm ci wàllu rab jërëjëf maam Rane ci question bi nga ñu laaj muy lan mooy différence entre rab jinne ak ngelaw seytaane ak nitu guddi daanaka mën nañu wax kon ci question bu njëkk bi rek rab jinne ak seytaane benn la jinne moo ñëw ci alxuraan rab wolof moo koy wax seytaane euh, arab mooy wax seytaane kon jinne bu tuubul mooy seytaane muy jinne bu bon bi kooku mooy seytaane jinne bi nga xamante ni jullit la moom macha allah rabbi jinne la léegi nag rab bi nag wolof moo indi baatu rab ñun wolof sénégalais yi ñooy wax rab kon li nga xamante ni nag moom la ñu njëkk wax rek Euh, ku wax rab amul wala ku wax jinne amul rek xëy na da nga jàngul alquran ndax yàlla nee na nit ak jinne la boole bind saak wa maa xalaqtul jinne wal ins bu bi yabudun yàlla nee na nit ak jinne laay boole atte bi si yowmal xiyaam kon loolu njëkk naa wane ni kon lu am la ndax yàlla lu mu bind ci alxuraan rek lu am la ñu demaat ci suratul jinn suratul jinn nag ñëpp jàng nañ xoolu ya lay tamahu nafru minal jinn loolu boo demee ci suratul jinn yi di nga gis loolu itam sunu borom di fa wax histoire bi nga xamante ni yonent yàlla muhammadu rasulullah amoon na ko ak jinne yi histoire boobu nag histoire la bi nga xamante ni yonent bi wax na ni benn jour jinne yi ñëw nañu ba ci moom sàkku pour mu dem ci seen barab jinne yi fa ñu nekk yeneent bi dem na ba fa jinne yi dëkk mu toog foofu di leen jàngal alxuraan karim di leen ko leeral di leen wax téere yàlla bi muy alxuraan karim ba jinne yu bari ci ñoom tuub ba jinne ci yu bëri ci ñoom ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba fa la ñuy jaaree bëgg alxuraan di leeral it nag ni nit ñi ak jinne ñoo dëkk nit ak jinne ñoo dëkk. depuis àjjana la ñu bokkoon dëkk bu ñu fàttalikoo histoire sunu maam Adama ak Awa ndax bu ñu fàttalikoo jinne yi àjjana la ñu nekkoon te ñoo jiitu nit ñoom la yàlla njëkk bind ko nit. jinne yooyu ñuy wax fiir moo leen jàppoon ba ñu jëlee Adama ak Awa àjjana ba ñu wàcc ci kaw suuf. waaye jinne dafa bari xam-xam daal di wax yàlla ni ko xeet gii nga bind daañu ànd ak ñii ci suuf waaye daañ la wan ni la ñii bu ëllëgee sa safara bi ngay wax fi naari jaxal na ma ñoom ñoo fay fees loolu mooy histoire nit ak jinne seytaane yooyu nag mel na lu tëkku yàlla mel na itam ñun ñii dañ ñoo tëkku mel na ni tëkku boobu ñu tëkku nag moo tax ñu nekk ak ñun ba fépp fu ñu teg suñu tànk rek jinne yi ñoo ngi fa teg seen tànk nit ku nit ku yàlla sàkk ànd nga ak ay jinne yu la topp ak ay rab ak ay seytaane jëy na comme ni ko waxee am na yu baax jinne yu baax yi amuñu jotu nit jinne jullit dëgg dëgg dëgg amul jotu doomu aadama mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci lu neex yàlla mën nañ ko waxee jinne jullit yi mais jinne yéeféer yi moom bi ñuy wax seytaane nag moom mi ngi ànd ak yenn nit ñu bon di leen dugg di leen yàq te dinañ ci ñëw dinañ ci gën a leeral. waaw jërëjëf Mamran question boobu am na solo mooy ñaata façon jinne moo am mën nañ ci takk ñetti façon ba ñeenti façon jinne wala rab wala seytaan yi nga xamante ne moom lañ ko mën a tuddee benn la comme ni ma ko waxee waaye jinne yi li ci ëpp bu ko nit di gis du ñëpp ko mën a gis jinne am na ñenn ci ay nit ñu yàlla may jagleel loolu waaye jinne en général en général dina soppaliku nekk bàyyi ma jinne bu baax buy soppaliku moom en général muus lay soppaliku wala fas lay soppaliku en général mais jinne bu bon li ci gën a bari buy soppaliku mu ngi soppaliku nekk xaj bu ñuul lay soppaliku. li ci ëpp ci ñoom si buñ la bëggee dugg wala buñ la bëggee buñ la bëggee buñ la bëggee rey wala buñ la bëggee def lu bon wala buñ la bëggee saay-saay maamu jinne dëgg jaan lay nekk jaan bu ñu fàttali ko ci histoire yenent yàlla Moussa yenent yàlla Moussa euh, xërëmkat yi njibarkat yi defkat lu bon yi bañ ko songee pour bëgg koo faagaagal bëgg koo rey ay jaan lañ ko booleel ay jaanu jinne yu bare bare bare bare yàlla may ko doole kàttan kaanam boobu mu daan yor bant bi mu soppali ko nekk jaan bu ñuul moomit it bu mag rey jinne yëpp ndax yenente la sunu borom a ko yónni may ko doole pour mu défendre boppam. léegi nag histoire rab ak jinne ak bi ngay wax façon yi ñu nekk bari na ndax jinne yi am na ci ñu dëkk ci géej gi ci ndox yi ci dex yi am na ñu dëkk ci jéeri ji maanaam ci garab yi ak ci désert yi am na yu dëkk ci biir suuf. te nee naa leen ci biir suuf fi nit ñi dëkk fépp fu nit teg tànkam laa wax de fépp fu nit teg tànkam jinne mu ngi fa dëkk wala mu ngi fa teg kër gu nit dëkk am na jinne bu fa dëkk jinne yi ñoo ngi fépp fépp ci àddina am na ci xeetu jinne bi nga xamante ni itam nag moom dafa bëgg nit di topp nit ba day dem bay ba bëggee dugg ci nit day jël jëmmi nit boobooy jinne bi nga xamante ne nag mooy jinne seytaan mooy jinne nag bi sonal nit ñi ñu koy wax faru rab ak di ko wax ay jinne maymuna muy topp xale jigéen yi ak di topp yenn xale yu góor yi di leen feebar ak di leen daaneel loolu xam naa dinañ ci gën a ñëw incha allah rabbi waaw jërëjëf maam Raan question bi nga laaj am na solo est-ce que am na nit am na collaboration ak jinne dëgg la am na doomu aadama yi xamante ni yàlla defal na leen mën nañu collaborer ak jinne li ci ëpp nag mooy comme ni ma ko waxee ndax jinne moom dafa soxla borom xam-xam wala mu soxla borom taar bu dee taar nag jigéen taaru la gën a bëgg bu dee xam nag kilifa diine ak muskalaf la jinne ak seytaane gën a yab jinne bëggul ko am jinne jinne itam dafa bëgg jigéen ji nga xam ne da am taar collaboration bi nag boroom xam-xam mën a am ak jinne ndax ñoom ñoo leen di jàng ñoo leen di xam ñoo xam seen àddina ñoo xam seen monde ñoo xam seen univers ndax univers day jinne du ñëpp ko xam du ñëpp la ko yàlla may du ñëpp ko xam du ñëpp ko nangu jàng sax du ñëpp ko nangu gëstu loolu moo tax nag boroom xam-xam yi ko jàng xam ko mun ko nag dañuy am collaboration ñoom maanaam jinne dafay pactiser ak nit dafay pactiser ak sëriñ féete ma fii ma féete la fii di la jox ay information jox la xam-xam ngay gis jox la xam-xam ngay faj jox la xam-xam ngay ñaan ñaareelu collaboration nag bi nga xamante ni jinne da koy am ak nit mooy jigéen ju taaru comme ni ma koy waxee wala xale jigéen yi am 17 ans 18 ans nekk ci buntu àddina di bëgg a dugg ci say en général jinne yi ñooñu dañ leen jug dugg ndax ñoom ñoo koy def ndax jinne dafa yàlla da ko bind comme ni ma ko waxee sànq ci ko ci changer. léegi ñoom bu ñu gisee jigéen bi nga xamante ne tey sol nga greffage poudre nga maquillage nga make-up nga ñëpp xam nañu luy make-up ak li ci nekk yaa ngi sol lu yiwadi say say cër ngi feeñ sa dënn ngi feeñ say say cër ngi feeñ sa biir ngi feeñ bu ñu xoolee sa suuf dara tëju ko yaa ngi sol baa sol body solo dàll sax yu baax kooku jinne bu la séenee ngay dem daf lay topp ndax jinne la yàlla bind ci soppeeku nit dafa am na ko yàlla bindee jinne nag bu gisee ki nga xamante ni moom dafa soppeeku dafa naan kii sama mbokk la daal di koy topp ndax ñoo ci kaw garab yi ñoo ci kaw immeuble yi taxaw di ñu xool ñoo ngi ci mbedd bi di ñu xaar ñoo ngi ci suñu biir kër di dëkk ak ñun. di wax nag bëtu jinne dafa ñaw te diggante bëtu jinne ak cëru doomu adama dara doxu ci dara boo solee yére sax jinne mën na mën na mën na mën na gis sa biir yaram lenn rek moo ko mooy li la fi musal. loolu moom bismillahi rahmaani rahim. lépp looy def di ko tàmbali booy sol sa yére wala looy nekk di ko léemoo ci sa yaram jinne bëtam loolu du koy gumba loolu du ko du mën a gis dara ci yow muy bismillahi rahmaani rahim kon nag jullit war nay sax ci kaddoom di wax bismillahi rahmaani rahim suy sol yéreem suy tëdd suy dem toilette ak lu mu mun munti doon na koy faral di def. waaw jërëjëf maam ran ci question bi nga laaj muy fan la jinne yi dëkk loolu xaw naa ko junj léegi boo seetloo jinne yi moom nee nañ la ñoo ngi dëkk ci ndox yi. ñoo ngi dëkk ci géej gi dëkk ci jéeri ji dëkk ci suuf si dëkk ci pax yi dëkk ci immeuble yi dëkk ak ñun nekkoon ak ñun àjjana nekk ñun àddina kon nit ak jinne ba ilaa baftuwal ba àjjana ak safara fépp ñun ñoo ngi nekk ak ñoom loolu yàlla bind loolu yàlla nam loolu yàlla programme ak ñun waaye nag ku nekk ak sa monde dafa ne ku ci nekk na nga nekk ci sa roq yam ci sa bopp bañ a attaqué monde ki ci des ku ci nekk na nga mandu ci sa morom waaye problème bi nag foofu la commencé mandu boobu nag jinne yi njëkk ñàkk mandu attaqué àddina attaqué nit nit ñoom danañ leen yàqal seen àddina ba dugal leen safara loolu moo tax jinne yi nag di dugg ci xale yi di yàq jinne seytaane yi yàqal doomu adama loolu moom macha allah rabbi lu mat a leeral la te lu ci am la. waaw jërëjëf Mame Rane ci question bi nga laaj mooy nan la nit mën a sentiree nii kat jinne dugg na ko wala jinne ànd na ak moom. loolu nit ki boo commencé sentir ni yow kat sa alal. yaa ngi commencé yàq am ay yàq-yàqu alal xaalis boo am rek day seey loo am day yàqu liggéey boo taxawal commerce boo investir taxi boo dugg camion boo dugg business boo dugg loo dugg yaa xam politique ngay def yaa xam activité commerciale ngay def mais lépp loo dugg rek da ngay sentir ni loolu day basculer da ngay mel ne ku commencé déficitaire ngay daanu di perte xaalis di am ay jafe-jafe ak nit ñi ndax jinne ak seytaane ñoom loolu lañu lay njëkk def dañ lay commencé ruiner dañ lay commencé yàqal di yàq sa àddina ci lépp li nga xamante ni yaa ngi koy def di commencé gént ay gént yu lëndëm yaa ngi dégg ba pare daf lay tàggale ak nit ñi ngay commencé di tëju di wéet doo bëgg wax ak kenn kenn doo bëgg wax ak moom doo commen da ngay commencé di daw nit ñi di am ay divorce bu dee jigéen la da ngay divorcé lu bari bu dee góor la itam da ngay tàggoo lu bari loolu ku koy commencé di sentir ci sa jëmm jàppal ni rab ak jinne ak mi ngi sa yaram rab ak jinne ak seytaane commencé nañ laa dugg ñoom bu ñu la commencé dugg rek automatiquement noonu lañ lay commencé noonu mooy seen première manifestation bu ñu manifester noonu rek jàppal ni seytaane commencé na laal loolu nit ki danga war a jóg ci sa bopp da nga war a jóg ci sa bopp xam ni kat lii jinne la lii rab la lii seytaane la ndax ñoom ñoo mel noonu nit yàlla da ko teral li yàlla bind nit la ci gën a fonk nit yàlla da ko teral teranga bu nekk yàlla am ko rek yeneen ko nit mais seytaane mooy dox ci diggante loolu di ko yàq di ko yàq kon nag lii ma tudd fii yëpp képp ku ko commencé sentir ci sa yaram seytaane commencé na laa jege wala commencé na laa dugg mun nga commencé sentir ni lii seytaane la wala rab la wala jinne la macha allah. mbokk yi yéen ñi am jafe-jafe ci seen wàllu wér-gi-yaram mën ngeen a ñëw fii ci géejawaay ci arrêt Doubalès ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara fal mu jàppale leen ci seen wàllu jafe-jafe ak seen wàllu wér-gi-yaram jokkalool ak man.

nerf sciatique hémorroïde ak yéen ñi am jafe-jafe ci kàttanu sëy walla ngóor yéen ñi bëgg a am jëkkër te am faru rab fàttewuma leen jigéen ji am doom walla siti maa ci gaaw yéen ñi am xeetu gémmiñ te bëgg a bàyyi tux ak naan jëlal sama numéro 77 646 41 21 sëy te taw am doom ak ëmb yu yàqu yi ak jafe-jafe yi muy làmbo kyste walla fibrome muy faru rab ñi bëgg tukki te am jafe-jafe ci wàllu kay yéen ñi tukki ba pare am ay jafe-jafe avancement ci seen liggéey ñii nag bu leen fa kenn jiitu muy jigéen yuy sëy te seeni jëkkër loxo bi dafa dëgër ah mbokki ak Serigne Mouhamadou Lamine Bara jaaxle jeex na faj ajo moo ci gaaw ku fa dem sa aajo faju ticket de consultation bi 2000 francs rek la. waaw jërëjëf maam ran ci question bi nga laaj mu jëm ci wàllu yan feebar yi nga xamante ni moom xàmme nañu wala ràññee nañu ni moom li ci bëri jinne da ci laxasu feebar yooyu moom boo ko seet surtout ci jigéen ñi moom daf leen di def ay apportement daf leen di def ay fausse couche jigéen ñu bëri daf leen di tere ëmb ñenn jigéen ñi dañuy am crise d'épilepsie wala ñuy am ay muur a tête di am bopp yu metti jàpp leen ñu am tim am ay fibrome am ay kyste am ay trompe bouchée ba jigéen ñooñu pour ñu am jëkkër sax day jafe rawatina nag pour ñu am doom wala ëmb bu ñu am dana ko tuur wala jinne yooyu en général bu ñu nekkee jigéen li ci bëri dañ leen di topp pour sëy ñoom mais jinne moom ci gént la nit mën a sëy moom mais mënul sëy nit nii directement foog nga gént ko boo ko géntee nag am na lu muy bàyyi ci yow loolu muy bàyyi ci yow ndoxu jinne dafa fort dafa diis ndoxu jinne dafa mel ne armiñoo dafa mel ne beteex bu duggee ci biiru jigéen da koy def ay feebar moo tax jinne du ñu ni mënul am doom ak nit loolu beneen xam-xam la lu xóot la pour jinne am ak doom ak nit loolu lu xóot xóot xóot la du ñu ni amul du ñu ni am na waaye xam nañu ni itim nekk lu yomb lu terre waaye jinne ngelaw la lay sol wala mu sol la feebar wala mu bàyyi ceew aw li ma wax loolu nag mën na la fàtt ba tëj say tromp nga sëy sa jëkkër téeméeri at ak juróom fukk doo mën a am doom walla mu def loolu loolu ma wax mu bàyyi si yow mu nekk genre fibrome wala mu nekk genre kyste ñun ñii di faj di sëriñ si dañ koy gis docteur yi nga xamante ni ay gynécologue de métier la ñu daañu opérer yenn fibrome yi bu ñu ko xoolee dañuy sax tudd yàlla. jigéen bu ëmbee dafay moytu ay cëram di feeñ jigéen su ëmbee na moytu ay cëram di day tax moom jinne du am ci moom yoon mais ji xale jigéen bu bu xamante ni ay cëram day feeñ doom joojur mën na am mën na am malformation. feebar yi nga xamante ni nag moom da koy jox góor li ci gën a bëri nag mooy góor moom da koy da koy da koy defloo muy mballu li ci ëpp muy foye boppam. di masturbé wu te ñooñu en général ay nit ñu baax lañ du ñu sax bëgg def lu bon du ñu sax bëgg mooy yàlla waaye li leen koy def loolu ñu ko xam guddi gu nekk dañuy jàng alxuraan di wàcce kaamin di jooy di ñaan yàlla musal leen ci seytaane mais rabu jinne boobu leen topp en général loolu lay def kon góor gu nekk da nga war di léemu sa bopp di def faatiya falaqi naasi di ko léemoo sa bopp guddi gu nekk bala ngay dëpp di jàng ayatul kursi yu laxal jaakum yooyu yëpp boo koy jàng di ko léemoo sa bopp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di def ay salaatul fatiha pour rek yàlla musal la ci seytaane nit danga nga war di muslu ci seytaane saa ne am na ci góor ñi nga xamante ni dafay dem ba dafay dëngal seen awra mu tuuti mu ndaw mu jàdd mu tuuti mu lool jinne day téye siditu góor bës ko am na góor ñu bari ñoo ngi dox di dem mais à tout moment seen awra day metti te loolu jinne moo koy def seytaane moo koy def day téye sa awra bës ko ba mu ndaw boo ba mu jàdd ba mu tuuti te loolu yëpp daf ci nekk am na ci góor ñi nga xam te daf leen di xiir mooy te nee naa leen ñu di mooy wala ñuy dem di sëy am na ci góor ñi nga xamante ni daf leen di jàpp ba guddi gune ne tànk demuñu wuti jigéen buy jaay boppam duñu nelaw fu ñu mën a nekk daañu ko wuti te bu ñu demee di sëy idée ko njàkk ni sax nit la ñuy sëyal te fekk jinne lay doon jinne dafa intelligent bala ngay egg fa nga jëm moom jiitu na la fa jël jëmmi kook wala mu taxaw ci tali bi yow rek nga nga ànd ak moom te loolu jinne moo koy def seytaane moo koy def da dem ba bu yàggee nag bu day dem ba téye sa ngóora def la nga impuissant dootoo mën a séy ak benn jigéen normalement ak surtout di la def ay feebar di la def di téye say cër loolu dana ko def góor di ko def jigéen def ko ay douleur musculaire ay douleur articulaire nga am problème mu nerf sciatique nga am problème mu colonne vertébrale yu góor ak jigéen ñu ci bëri ci ñoom loolu moom mooy li nga xamante ni loolu moom la leen di rab di jàppee te nee naa rab dana dem ba jàpp xale jàpp bébé jàpp liir liir bu juddu tey tey tey tey tey bes taq jinne dana topp nit sax ba ci biiru yaayam sol ko foofu la koy commencé ñenn ñi ñenn ñi bu ñu juddoo mu topp leen ñenn ñi bu ñu amee cinq ans sept ans ñenn ñi bu ñu amee dix huit ans seytaan ci la leen di dugg bala mu leen di bàyyi rek ñu màggat ba jinne boobu ba nikoo kooku dootul am njëriñ mu yàq àddinaam du am jëkkër ñenn ñi duñu am jabar ñenn ñu duñu sëy ñenn ñu daf leen di yàqal ku leen labat mu yàqu ñenn ñu jigéen ñi fu ñu sëy sëy boobu day yàqu loolu nag góor ñëpp mënuñoo bokk bon bu boobaa yow nit ki war nga xool lan moo bon am na lu bon lu la topp ndax góor ñëpp mënuñoo bokk bon bu dee góor it jigéen ñëpp mënuñoo bokk bon kon am na lu la topp di la yàqal loolu lu mat a seet la ndax jinne mooy def noonu lépp loo am da koy yàq du xaalis du alal du sëy du jabar du liggéey lépp loo taxawal wér-gi-yaram fépp la lay xeex fépp lay xeex nit fépp lay xeex doomu adama te kenn mënul mucc ci ñoom ki mën a mucc ci ñoom rek mooy ki saxoo diine ku am diine am lislaam di muslu te di yiw dafa nekk li am solo ci doomu adama di sol lu correct di wax lu correct di dem fu koret waaw jërëjëf Mamran euh, li nga xamante ni moo am solo mooy li ñu waxtaanee léegi lan mooy différence entre jinne ak nitu guddi jinne différence am ak ak nitu guddi mooy jinne daf lay dugg jinne moom noonu lay def moom daf lay dugg ànd ak yow nekk ak yow jinne day dugg nit dëkk ak yow fréquenté la ànd ak yow ci lépp looy def loolu mooy jinne loolu mooy seytaane ànd ak yow pour conduire la en erreur pour def la loolu bon soo bëggee jaamu yàlla mu yàq ko sooy julli mu ñëw taxaw juum loola ci saar juum loola ci ay ràkk sooy jaamu yàlla mun la sa julli baaxul li nga mus a yëpp musul baax tariwoo saar yi normal da nga damm araf yi ay ni nga ko waxee baaxul kenn loo yàlla jinne noonu lay doxee da lay yàqal moo tax nit ñu bëri dañuy laaj est-ce que seen jaamu yàlla sa baax na ndax jinne à tout moment seytaane day taxaw di yàq sa digganteeg sa borom. di yàq sa digganteeg sa jëkkër di yàq sa digganteeg say doom yàq sa digganteeg say dëkkandoo ngay xalaat xalaat bu bon à tout moment kon jinne loolu mooy différence am ak nit guddi nit guddi nag mooy dëmm dëmm boobu nag moom daf lay tiital dafa am lu muy jël ci yow nit guddi day jël ci yow maanaam day jël sa fit moom loolu day njëkk def daf lay tiital nit guddi nag li ci gën a bëri nag bu ñuy soppaliku ñoom bukki la ñuy soppaliku ndax bukki mooy li gën a moom léppam léppam poson la karawam posan la yuutam posan la bëñam posan la deram posan la lépp bukki posan la bukki amul yaramam lu ci dul posan sibiritam posan la lépp bukki posan la moo tax nitu guddi yu bëri ñoom noonu la ñuy soppali ay nag lañuy nekk nag wala ñu nekk bukki loolu moom mooy dëmm dëmm moom baaxul waaye nag lu am la ndax ñun ñi di faj dañuy faral di gis ñenn ñi nitu guddi daf leen di attaque kon nag loolu mooy li nga xamante ni ñun xam nañ ko ci jàng nañ ko ci li nga xamante ni ci ci gëstu yu ñu def loolu lañu xam ci diggante nit rab ak jinne ak nitu guddi loolu lañ ci mën a leeral. waaw jërëjëf Mame ci question bi nga laaj mooy danga laaj est que am na jinne yu baax dëgg la am na jinne yi nga xamante ni macha allah ak jinne yu baax lañ mooy jinne yi nga xamante ni déggoon nañu woote yàlla bi jinne yi nga xamante ni mooy déggoon nañu jàngub alxuraan bi yenente bi jàngoon alxuraan ci seen biir amuñu jot ñoo ngi ci seen jaamu yàlla jinne yooyu nag nit mën na dox ba dajanteeg ñoom wala nit mën na dem ba yàlla euh, boole leen ndax yàlla mooy boole boo dajanteeg jinne julit nag li muy njëkk def mooy képp ku la liggéey def koy dindi képp ku la xeex daf lay daf lay daf lay daf la koy daf la koy tàggal ndax li ma sànq jinne day dëkk ak nit day ànd ak nit ñoom yàlla may na leen loolu ñu ànd ak nit dëkk ak nit bu baax comme bu bon jinne am na ci dëkk bi ñi nga xamante ne am nañ alal table bi ba mu fees mën nañ ko def malet d'argent mu jox la alal ju jeex maanaam du la lor du la yàqal du yàq sa digganteeg sa borom du la tegi feebar te mun na laa jox alal te mën na laa jox xam-xam am na borom xam-xam yu bari ngeen fii dégg xam-xam jinne la ñu am yàlla moo leen may ñu mën a yàlla moo leen ko jagleel ñu xamanteeg jinne bu baax bu am jinne mu leen jox xam-xam jinne am na jinne yu baax yu joxe xam-xam jinne jullit yi nag mais julli seytaan yi nag moom mën na lay jox xam-xam mais tôt ou tard dañ la war jinne seytaan lu jafe xam la lu jafe xàmme la ak lu jafe doy waar ndax jinne itam dañuy war xeet bu doy waar lañ jinne ku ko xam rek ku ko jàng xam ko miin ko rek xam nga ni jinne day war. waaw jërëjëf maam daan euh, jinne moom espèce la yi nga xamante ni espèce bu raar la bind bi ko yàlla bind daanaka bind bu spécial la ndax nit du soppaliku nit dëgg nit normal du soppaliku mais jinne moom day soppaliku. waaye jinne li gën a ci ñoom ci ni leen yàlla bindee. jinne moom day fàtte jinne lépp lu mu def tey à la minute ci mémoire am dañ koy formaté day fàtte bu defee lu baax fàtte na ko bu defee lu bon fàtte na ko yàlla moo leen bindee noonu nit ak jinne ay contraire lañ nit nag lépp li nga xamante ni def na ko démb def na ko semaine passée def na ko feeg weer def na ko feeg at passé nit xam na ko mais jinne lépp lu mu def ci passém fàtte na ko ñoom espèce boobu na leen yàlla bindee ba ñu ñëwee ci àddina ak léegi ba leen yàlla wàccee ci kaw suuf léegi lu mat a leeral sauf seen mission nag mooy yàq moom loolu moom duñ ko fàtt mission bi leen tax a ñëw ci kaw suuf loolu moom duñ ko fàtte moom dañ koy nekk rek di ci def waaye lépp lu ñu def fàtte nañ ko ñoom seen suba lépp luy am suba xam nañ ko nit lépp luy am suba xamu ko Membrane yow mii may euh, interviewé lii xew suba xamoo ci dara man mii xaw ma ci dara keneen lii xew suba xamu ci dara waaye jinne moom lépp luy xamante ni ñu ngi ñëw suba di ñëw gannaaw suba di ñëw feeg weer di ñëw feek ay at yàlla may na ko jinne mën na koo xam. président bi war a nekk président deux mille vingt quatre jinne yàlla xamal na ko xam nañ ko li war a am yépp ci fii ak suba fii ay at yàlla xamal na leen ko yàlla moo leen defal loolu lépp luy bëgg am ñoom xam nañ ko waaye lépp li nga xamante ni mooy lu paase rek xamuñu ci dara. jinne itim ñun comme ni ma ko waxee léegi ñun suñuy contraire lañ ñoom yàlla dafa am cër bu leen defal nit yàlla am na cër bu ko defal nit yàlla may nañ ñu lekk xar lekk bëy dundee dundee dundee nag dundee lu dagan dund lu baax lekk lu baax waaye jinne yi moom ñun suñuy lor lañuy ñuy dunde maanaam nit ak mala yi nit ak mala yi bu ñu demee cabinet seen cabinet yi jinne mën na ko dunde nit bu lekkee bu amee ndawal ndaray nagam lekk ndawal bi ba suur jël yax yi dajale ko sànni ko ci mbalit ba jinne yi yàlla daf leen may yax yooyu la ñuy dundee yax yaxu mala yooyu la ñuy dundee ñoom jinne yi te sunu borom defal na leen ci barke bi nga xam ne mooy ëpp fuuf yax boobu ndawal bi ñu lekk ñun jëmmi nag bi loolu nag lu lu xaw day la ba moo tax bëri na ñu bëri na ñu jommi bëri na ñu yàqu xool yaxu nag wala yaxu xar wala yaxu bay di ci saw kooku boobaa jinne yi dañ lay alak ci saasi ndax ñoom loolu la ñuy dundee bëri na ñi nga xamante ni dof nañu loolu moo leen dof lool ndax boo demee ci àll nga jël yaxu nag ñettee kooko nga dem cabinet ba pare ñettee kooko loolu daf lay dofloo dafay dofloo nit ci lu gaaw boo demoon ci àll bi wala fi fi pël yi di nekk pour boo gis sàmm boo gis ñoom dañ ko fonk fu xar ak seen bëy yeeg seen nag yi euh, dem cabinet du ñu nangu keneen ku ci demaat cabinet nit sàmm bi du ci demaat cabinet da koy warmaal da koy jël sànni ko fële déplacé ko waaye duñ ci demaat cabinet maanaam nga fekk kabine nag ak bëy ak xar foo ko fekk bu ci sawaat bu ci defaat kabine bu ci defaat lor bu ci defaat salte sànni ko ndax loolu loolu dootul yëfu nit alalu jinne lay doon muy ay subrit muy yu doon te jinne itam dafay dundee deret loolu bokk na ci seen dund deret muy deretu xar yi deretu nag yi foo koy taataan ba moo tax suñu mbokku lëbu yi ak ñi tuur ak ñi def ndëpp bu ñu reyee nag bi deret bi dañ koy taataan ñëw ba ci géej gi di boo gisee deret bi itim ñoom moom la ñu dundee boo dee xool même ci jalañ yi boo dee xool même ci ci seen tuur yi bu ñu reyee ginaar wala bu bu bu ñu laajee deret ñu tuur deret bi deret boobu nag rab yi ak jinne yi dañuy ŋaang boo sottee ñoom ñu dundee ko ñoom it bu boobaa ñu defal la li nga bëgg wala ñu nga lewetal rab bi wala nangam wala nangam nga partiser ak ñoom nga arranger en tout cas ñoom loolu la ñu dundee kon yaakaar naa côté boobu itam membrane leeral nañ ko bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf Mame Rane ci interview bi wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax bu demee ba jeex nekk ci cappaandaw li xëy na jinne moom benn partie bii rek tey lañ ci jëloon def ko benn tronc pour waxtaan ci mais xam naa ni beneen yoon daan ci gën a demaat. kon Mame bu ñu ñëwee ci solution lan mooy solution bi ci diggante jafe-jafe yi am ci diggante nit ak jinne ak rab ak seytaane ak nitu guddi. di saxoo diine nañu gën a delloo suñu xel ci yàlla. buñ fa delloo lu bari dana ñaareelu mbir ba yàlla def ñu bindal ay mbir yi nga xamante ni moom ñun ci la ñu sukkandiku ñun ay sëriñ la di faj di ñaan ba képp ki nga xamante ni sunu borom mi ñu boole ak moom. en général ñiy faral di ñëw ci ñun dañ leen di bindal ay saar lu mel ne Fatiha Falaqi Naasi ayatul kursi amana rasul alif lam mim zalikal kitab surtout jinni lépp lu ñu mën ci ak xam-xam ak alxuraan ak xasaaytu sëñ Tuubaa rek danañ la ci ñaanal. may la ci léemaay pour yàlla dimbale la loolu sore la te képp ku mu dal buñ la ci joxee ñaan yooyu incha allah rabbi loolu dan la dan la sore dootoo ko gisati mukk sa àddina dina dañ définitivement du tane day wér dootoo ko gisati loolu moom am nañ ci xam-xam bu wér ndax jinne bala nga koy mën a faj danga koy jàng da nga koy xam da ngay xam seen àddina xam seen dund li nga fi laaj lépp may la ay curaay seytaane yooyu utiliser xam te foo ko taal seytaane dana fa dana fa daw ndax seytaane yi dem dafa am yi nga xamante ni dañ koy moytu ñoom ñun xam nañu ñoom lan la ñuy moytu li ci ëpp doole nag mooy alxuraan lu mel ne que ayatul kursi dafay lakk jinne bu bon dafay lakk seytaane euh, pour faj ko nag am na ci ñi xamante ni ñoo ngi koy fajee boo ñëwee ñu noddal la sa nopp ndeyjoor liqaamal la sa nopp càmmoñ jàngal la ay alxuraan taril la ay saar am na ci nga xamante ni nag yenn saa yi malade yi bari ci ñun ba du ñu am temps bi dañ la koy bindal rek jox la ko nga def ko un traitement de un mois da jëfandikoo ko suñu borom defal la ci feex nit ñi itim nañuy faral di leemu fépp fu ñuy dëkk ci seen ay néeg ñeenti bopp koñ yi di fa jàng ayatul kursi ak la xal jaakum bu ñu mënee ñu ko fay bind di fa def ak ñi nga xamante ni rab daf leen sonal na nañuy faral di wàcce kaamin lu bari ci seen ay barab même bu ñu mënul di fay ñu leen di wàccal kaamin ñëpp am léegi portable yi nga xamante ni alxuraan karim da ci nekk fu alxuraan karim di ji di yëkkatiku même booy nelaw nga wàññi ko ndànk alxuraan di fa nekk yenn jinne yu bëri duñ fa mën a dugg képp ki nga xamante ni rab ak jinne seytaane yooyu topp na la boo ñëwee géejawaay arrêt du bales kër Serigne Bara am na consultation ku woote ci suñuy numéro daañu la wax ticket de consultation bi ñaata la ku ñu bëgg gis nag suñu cabinet ñoo ngi fay nekk lundi mardi mercredi ak jeudi mooy bis yi ñuy def consultation ñi bëgg consultation à distance it mën na nekk foo mën a nekk toogal fa nga nekk fay sa consultation à distance daañ la mën defal sa consultation par téléphone seetal la xoolal la sa yaram lépp lu ci nekk fajal la ko ndax ma it du ma ñëw rek di faj nit te xooluma ko mat naa leeral bu ñu jógee ci loolu it fépp foo mën a nekk mën nañ la yónnee ñaan yi defaral la ko yónnee la nga nekk boo sore woon am na ay GP boo nekkee fii itam ci dëkk bi am nañu ay cag-cag ak am nañu ay oto yi dem ci région yi daan la ko mën a yónnee ku mën a ñëw it na ñëw te mu tegu ci diine tegu ci lislaam tegu ci alxuraan te du génn yàlla du génn yenent bi du génn sëñ Tuubaa mi ñu bokk yaakaar allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sëriñ Mouhamad Lamine Bara Fall Guédiawaye arrêt Doubalès képp ku ñu soxla contactel ci contact yi di mën a jot daañu la mën a jàppale ci ay ñaan suñu kéemtalaay kattan bismillah jërë ngeen jëf